naataal farweer ak ñeent lan la jaamu yàlla yi war a def suñu tawatee dañu war a ñaan yàlla ci kàttanu Jésus te gëm ni dana def li gën ci ñun waruñoo ñaan keneen walla leneen walla ñuy jublu ci xërëm mbaa njabar yàlla mën naa saafara jàngoro yi su ko soobee mbaa mu dimbali ñu ba ñu am li koy faj yàlla ku ñu bëgg la bon waruñoo am lu ñuy ragal Jésus ngi ànd ak ñun ngir dëfal ñu ci suñuy tiitaange. nataalu fanweer ak juróom. xam nañu ni ñun ñëpp dañuy dee. wante lan mooy xew ginnaaw bu ñu faatoo. bible bi di waxu yàlla wax na ni bu ab chrétien faatoo xelam day dem ànd ak sang bi Jésus. ay xaritam waruñu am naqar. waruñoo ragal dee ndax xam nañu ni yàlla ku ñu bëgg la. te musal nañu ci suñuy bàkkaar. ndax gëm bi ñu gëm Jésus mi ñu joxe muy sarax ngir suñuy bàkkaar ñi gëmul Jésus du ñu am dund bu dul du ñu am dund bu jeex ci wetu yàlla ginnaaw bu ñu dee ñooñu ci bërëbu mbugal lañu jëm ndax nanguwuñu woon yoon bi leen yàlla tànnaloon